أوسارا يا محيا أنخديه خديه من قبل أنصارا

يا مكرم ضيفيا ران كان أوسارا يا محيا أوسارا خبل أوسارا يا مكرم ضيفيا ران كان أوسارا أوسارا الهدي الخديم يا أوسارا يا مكرم دفجا رنكال أوزارا يا محيا أنخدي نخبل يا مكرم دفجا دفجا أخذي من ناداك في البحر باب البار خادمكم اليوم خد تلخ خادمكم الله مختار تخو بالخير أغني تكرمتي فاسهم أسوائي أستار بكرم الدار قال أوزار يا مايا قبل أوزارك حليته عن سوى رضوان قبلك ما حليته بمنى دارين مبرارا منتهى سره لله مرتديا عنكم وخلاصا مرتديا وأسرارا مكرما في جارك الأوزار يا ماهي الأرض بالغبل أوزار أنته من سقر فايزا أبدا جل وحيد بل كل يدفع نارا هلال ويبل كل لا يالو نارا هلال وحيد بل لا اله الا الله màggal xasaar gi yàlla nga tàggoog tànk yu jug leen خسائر xasaay دارنا jar na ko jug leen màggal xasaay هلا وهب درجة بلكم لا إله إلا الله أنا سبي مام برون توبا يا لولو بابنا هلا وهب درجة بلكم لا لا إلا الله لخو تكون مقل خسدانجي فقد فقد خلا وحب بلكم لا إله إلا الله بل لكم لا يدخل نارا هلا وخير ابنكم لا فروج مجلا لا هلا وخير تبنى الجنه ينيبنا للامين فلا وخير ابنكم لا يبكي لا هلل وخير ابنكم لا اله الا آه، الله بنكم بنكم آه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا حبنا للمنى ما سافى وما بعده قدر قدر جاي جاي قدر بارد النار يا مكرم الضيف جار رانك على أوزارا يا مايا ملوا بابنين لا لا حين بي ليا سن منهم منصرفا كل ما في دب لا إله مكرما ضيف جا ضيف جا أو سارا يا مايا الخدم بمننا لخير أن ينتهي سوف في أبدي بأبد وأقدار مكرما ضيف جار كان ذلك الأوسارا بالوابل بابا من أنت النبي الرسول للمصطفى صلى الله عليه وسلم واو غوريو ديلو خايل لنا رب كريم الدي في جار كان يا ما يا لنا دي mel loolu la jaaruka jaaruka nii la jaaroo ka nii la jaaroo ka nii la jaaroo ka nii la jaaroo ka yaa xayral waraa badaa lay kasal la mama kulli il wasaara mu kuri man day fi jaaram kaana kala awsaara ya maariya al qadir بابا بنينا صلى وسلم بارك لا شريك له جل لا جيل بجر قطب انصار بكر من في جار في جار او سارا يا مايا فمننا خطة مغلبات خادت لأربي تعود قبل اليوم الأوزار مطرما الضيف جارا كان كان nuur tuubaale lu jëm saalixin ba maa ngi ñaan ci doora Cheikh Ibra Fall ku bëgg a dem Touba jógal taxaw ca kaw magal Cheikh Ahmad Bamba jar na ko taxaw ca kaw ñu magal Cheikh Ahmad ko acca Saliou Bamba nee na Touba Bamba nee na Touba li habdil moore din saat xindox mu lalu jëm dëkk ba alxadiyaati ana soppey Seex Muntaxa sunu xalifa bi xalifa bi xalifa bi ibnu Basiir tubaale xam di tubaale lu jëm dëgg ba tubaale lu jëm dëgg ba dugg raw la min am hadiyaati tubaale habdil moore ku fa dugg raw ku fa dugg te ku fa dugg raw ku fa dugg te xemam bamba nee na bamba nee na hadi wa sukri liman kulli bisara حين سنسار سكري سنسار دون سقط بابنين خزانا وارد وان بلا سخط ما أنا أنصار وسنا إيواري ردوان بلا سخط ridwaan ridwaan dana awsaara lillahi kulli lada abar makrumata ruhta nawfi hajama marsaara abar makrumata bilata nawfi aja من سارا إن الذين إلا سار سار قد خسدوا خسدوا يا ريت فار قدارين أنصار الذين إلا سار سار قد خسدوا سار سار يا ريت فار قدارين أنصار goyla monu goyla monu monu amma ba yunde jag nanu jag nanu jag nanu sun yunde jag fele ya wala wala goyla monu man ban monu nanu bamba ba yaade yaade sunu mbir man leen Serigne Touba mbég nga noo faggoon Cheikh Amadou Bamba hajar yëngul ma am gën na nu nangul wembi rey la sa jëf ji rey la mengaloo faggoon mbég maa nga Touba yaajara yëngul Cheikh Mountakha ko yor danay basiru danay xaadim sa waaj muy noor dina wet muy noor dina wet nekkal fi sun wet daalin përaat xubaar jaay muy loor di nawet Cheikh Ahmadou Bamba nekkal fi sun wet ay ndeysaan lépp rafetoon ne mara jaay san waaj seexal nga ay seex waaw waaw may leen dul jeex may leen lu ay seex yaa seexu Bamba Cheikh Ibra Fall Maam Cerno Cheikh Mandumbe Cheikh Masamba Mamor Jaara dëkk jëmbal bay maam sey jaay Fall santul waay dama nan yaay waay waay waay bëgg maam Seex Ibra yëkkati sa baram yu màggal murutu su màggal Seex Ibra baay fàtte kawel nga paaleen teral nga njaayeen kawel nga paaleen teral nga njaayeen kawel nga paaleen teral nga njaayeen leeral murid di la Bamba Seex Ibra mu bëgg Serigne Touba ba mu jeex maam Seex Faal leeral muridina yaay lëmp ban ba Serigne Faal bi leeral muridina sopp naa maam Seex Ibrahima Faal leeral muridina yaay lëmp ban ba loxo ca kaw ñu mag Cheikh Ibra Fall jar na ko ana soppey murid bu mag muridina yaay lëmp ban ba Cheikh Ibra muridina yaay lëmp ban ba Cheikh Ibra maami Seex jëm faal ak Seex digal faal leeral muridina daay lamp Bamba Seex Ibra ana Baay Faal yi ana Baay Faal yi sëñ Faal moom sëñ ci dindi alaaji Fallo ba Baay Faal di dindi Baay Faal kuréel mu di la xamal la réew mi borom dindi borom dindi mbooloo mi sëñ Fallou googu du leen màggal ko ku jóg màggal sëñ Fallou yàlla nga tàggoog tànk yi muti du leen màggal sëñ Fallou jar na ko ala jëfal la ko sëñ cindi ji fallo ba def di dindi kuréel mu dindalal xamal la réew mi Serigne Fallou ku fi nekk ñëw jox ko addi ay Serigne Fallou jar na ko ku ko jox addi ay Serigne Fallou yàlla nga ba kuréel mu dindalal xamal la réew mi Serigne Fallou di ma seex fallu di ma seex fallu seex fallu laa fallu loolu am na bismillaay borom dindi borom dindi borom dindi borom dindi borom dindi la ma sa am na bismillaay sëñ Fall ba yaay seetub sunu maam sunu maam jaara jaara tulaay poroxallu ana soppey maam jaara ma ca Porokhane doomi daam hade moon doomi daam hade moon baari laay Sëriñ Fallu doomi daam hade moon doomi daam doomi daam nga bamma yaare yonnen bayit laay borom dindi borom dindi borom dindi borom dindi ajaway ajaway jaajëf jaajëf jaajëf matini jaajëf jaajëf la jaajëf bara Aminata Lo bara Cheikh Sidil Mokhtar la jaajëf Lamine Ba barke bu Cheikh Saliou oh. Mbacké Cheikh Saliou Cheikh Saliou Mbacké Cheikh Cheikh borom la gan seen Saalihu Mbàkke tibale te mbay nu mbaale jox lu nu gañ hay dooni Bamba baysal yaba baysal yaba mbaale jox lu nu gañ dalli leero hay dooni Bamba jannato dim la xawa moo di kër Sëriñ Saal al dana Sëriñ Saal daaru yaa nga maxwaa jàllatoo di maxwaa waa ku soog Serigne Saliou jógal magal ko du leen magal Serigne Saliou jar na ko kat yaa nga maxwaa Saliou jàllatoo di maxwaa moo di kër Serigne Sall ànd nañ Serigne Sall Mbacké ko waa

moo ko def ca maxwaa bay saal ku ànd ak moom raw loo ci gis Serigne moo ko def ca maxwaa bëgg Serigne Bamba ku bëgg Serigne Bamba jëggali yëngu tudd Serigne Sall moo ko def ca maxwaa loo fi gis Serigne Sarr moo ko def ca Maxwaa loo ci moo ko def ca Maxwaa lam defal seex lam defal seex beeco kooku mooy borom xam na kuy borom jamono lam defal sëriñ xam na kuy borom jamono beeco maam bi seex bi dem ba sëñ jaar yàlla danaa bu kenn teg sa kenn cin seex bi jël nga ndambali Ah, ah, ah, te naa bu kenn teg sa kër cin seex bi jël la ndamle te te naa bu kenn teg sa kër cin seex gi jéemu woo gaañi di laa daal di des na leen ko puj paaj seex bi jël nga ndamle magal gi jéemu woo gaañi di laa waa walaay te jël na dambali naa li des nan leen ko puñ paaj seex bi jël nga dambali naa li des nan leen ko puñ paaj seex bi jël nga dambali te naa li des nan leen ko puñ paaj seex bi jël nga dambali te naa li des nan ko puñ paaj seex bi jël na dambali laylatu mawlidin nabi Muhammad laylatu mawlidin nabi ليلة ما وتهبي وتهرز التأزمي سرين نانا لبوا نانا سيدنا محمد مامبا بني محمد رسول الله ليلة مولد النبي ليلة ما ويريبي ليلة ما وتحبي وتهري ست أزمي بأن جات والفلاين ما سرور والنجاة بأربا وصلاة ما اندفاع النغم خوار خوار خبدت hani ruwaatin sabatat kamis li naaril nit fi aat ma mia inda xami waaye lisa watalleti ja qad xasumat wa jalleti lil forcément ablal milati wa suyrat kal xadmi wa kal xidaadis لازم أخبار النبي ورجو بالندم يا سيدنا محمد سسوبي بفتوبة نينا لا فمن يعاسم مولدا نبينا باب الخدا فلا يحاسب أدا فاحترم من واسم من واسم مولا نبينا بابل لا يواسب ولا فاحتر من من يحاسب لمولدا نبينا باب الهدى لا يحاسب ولا عذر من واسم من برم توبانين لما أمر واسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب ولا فاعتر من واسمه waaw jërëjëf fi mu toll nii fi mu toll nii daa jar jooy bayit wi mu toll nii daa jar jooy li tax ñuy màggal guddi gii ndeysaan noonu rekk la daa war a jooy ndax ngeen ngi mbindeef mi di tax ñu sàkk ñu te reyloo ñu ko waral guddi gi kon bayit yu mu toll rek moo waral lii yëg-yëg la nag yëg-yëg la wax dëgg yàlla njàng mi da ko jàng yéene ak pëseef lii ñuy def nag yombu ñu koo def wax dëgg yàlla waaye buñ ko defee rek yëg-yëg buñ am la kon dama ma ngi ñaan ci doole yi sidina mohammed ñu ñëw fekk mu fi fii teralal ma ngir borom guddigi ku ñëw fekk ma fi jox ma addiya yi sidina mohammed li dess sa xaliss yàlla bu ci ordonnance génnati ñëw leen li def ni baaxoo mu ko def way baaxoo mu ko def dama bëgg yéen gor yàlla yi ngeen fekk ma fi jox ma addiya yi sidina mohammed ma jox sëñ Arouna soxna yi ñëw leen kenn warul leen a man ci dara soxna jaara jàmbaar la woon lool dina jàng incha allah góor yàlla yi ñëw leen bisimilah si mawlida nabiyuna babil huda fala yuasabu ada faxtariman wa azimi mambamba nee na li mu wax nee na seydina muhammad ah. mambamba nee muhammadu rasulullahi فمن يهازم مولدا خير البرايا أعمدا فكسعيد سعيدا بدرا بحير وامي فكل من أنفق في مولد المصرف مالا بخير صرف ولو بقدر درهمي فإنه كما الحدث يوم هنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفام فمن يحاسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يعصب عدا عند الحساب المفهم فكل من قد قدره مولد أفضل الورى موازما مبشرا بسكر أولامي لام فإنه قد سفرا بما يديم البشرى ولا يلاقي دررا يوم اجتماع الأمم فمن تهامن حياء فمن تهامن حياء فمن تهامن الحياء لمن خد خرا مبجلا فخبا خيرات آل الإمم ومن على سيء قرا مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفنعم وإن حلا أي أيخري أريد خير البصري jërëjëf waaw joo leen ko adiya joo leen ko adiya jarnako lol jox leen ko addiya waay xam naa foofu la ñuy yemmadi sax ndax sëñ Harouna dafa daanu njàng mi neex na lool waaye nag dafa mel ni leeru xasida da koo dugg sëñ Harouna ñu lay sant bu baax la gërëm njàng mi am solo trop macha allah kon daal dafa mel ni foofu la ñuy foofu la ñuy yem mën ngaa daane sa kaddu foofu la ñuy yem jërëjëf mën ngaa daane sa que xol moo fees du koy mën a continuer wax dëgg yàlla jërëjëf Serigne Harouna Ndour jërëjëf njàng mi wax dëgg yàlla tegu na ci Pastef wax dëgg yàlla parce que dem nga boo di tur ay xeewal loolu xasida yi moo koy def Serigne Touba dafa bindul ay tiaxan lim ban defaree lol lepp nek ci bir ku koy jang di ko selal mën nga dem ba tolu kawé ay tolluwaayu kawe kawe kawe kawe lolou Mom ñu faral di jonjoog khasside yi xamnañu ko yalla suñu borom defal Borom khasside yi yep yalla ko suñu borom defal yalla ko yanké wal yak tuta ingandal yep wa de yalla ku gis bi rek nga xam ne nit ñi toll nañu ay xaala daal nit ñi yéeg nañu ci ay xaala yoo xam ne xam naa ne nga nga nga arrêté foofu mooy gën nga arrêté foofu mooy gën loolu day dellu ci li ma waxoon léegi rek xasida yi moom ku koy jàng ñun dañoo war di sàkku ci moom ñaan ndax ndax xaala bi mu tollu nii xaala bu yéeme yéeme la boo xam ne ku ci toll yeneen la daal yoo xamante nii du yomba expliqué kon loolu la yàlla dogaloon nga war a fesal sa yéene ci bés bi tey ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di la ñaanal itam mucc ak tawfeex shahaadatu daaray ni ak nuuru daaray ni ndax xasida yi moom ku ci nekk daanaka dañ lay dolli rek waaye yow yaan war a ñaanal sax alhamdulilahi rabbil alamin kon sëriñ magu fay sëriñ magu fay defe naa mu ngi dégg sunu kàddu mën naa ñëw moom mu fesal yéenam ci bés bi incha allahu taala bu daaneele rek Serigne Abdou Diouf moo ñëw église des ci guddi gi kon Serigne Magu Fay bismillah mën ngaa ñëw daadi di fesal sa yéene ci ci bés bi kon xam naa murit yi nga xam ne ñoo yore wala organisation bi bu nu mënee ñëw ñu yégalal ko ay sees fale oustaz Moussa Diouf ak oustaz Ousseynou caaw xëj na bu nu ko mënee accompagner ci kaw dana doon lii gën incha allahu taala kon bu ngeen ko mënee yéegalal ay banc rek ak taabal bi xëj na bu mënee yéeg su ko defee bu ñëwee mu am fu mu teg ay bagaasam incha allahu taala waaye di soññewaat rek ci ñu gën a am posteef ndax bayit boobu mu doon jàng ba tollu ci xaala boobu mu tollu mu naa fa may yuasim mawlida xayri baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi khairi wahami hami dene kep ko ne mu ngi magal gudi gi moy bes biñu nek ni nii besub gamu ku koy taxawal diko magal mu ngi mel ku yor jasi bok ci wa badar di xexal l'islam di reyante ci yoonu yalla te lolu ay way la lolu loolu mayewu ko bayit bobu nak xamna da tomber rek mu xam li ci bi doon junj ba yéeg kon nan posté fuwaat ci bés bi du bés bu yomba am ndax bés la boo xamante ne nii liñ ci mën a amee gisuma ci benn bés boo xam ne des na ci mën a amee loolu bés boo xam ne Sëñ Tuubaa nee na ku ko màggal bu ñëwee day set wecc ci ay bakkaar bu ko màggalee bu bët set te na mu ko war a màggale mu bésu gàmmu su bet setee mu set wicc ay bakar kon jamanu jin tollu de bakar mom kenn dina awma ko amul kenn amul fitu ne awma bakar ñun ñëpp dañuy faral di def ay bakar yu bëree bëri kon buñu amé bes bo xamné buñu Bunu ko ci buñu ko magalé yi kon waras na ci waras na ci profito bu baax a baax lol nak serigne touba moko wax du lo xamantene ni man ma tok fi rek diko wax dedet serigne touba ci bopam moko moko wax dadine dadine faman yu'assim mawlida khairil baraya ahmada fa shahidin shahida badran bi khairi wahmi lolou wax nako dadine daa di ne mawlidil bashir yaamil ayala wad duyur فيه شفاء li لكل هاد ينتمي loolu kon leer na nañ kon góor góorgóorlu bu baax a baax a baax pësteefuwaat bu baax a baax a baax dolliwaat suñuy laxasaay bu baax a baax a baax di wax ne àdduna dafa jaxasoo lool sëñ magu egsi na wala bismillah sëñ magu mun nga mun nga yéeg ñun dañoo jàppoon na xëy na nekk goo ci biir kii bismillah kon sëriñ magu fay ñu teewlu ko bu baax a baax a baax thème bi mu waxtaanal nu waaw Serigne Magu fay thème bi nga xam ne waa daayira bi moom lañ tànnoon pour waxtaan loo ko ko mooy ndaje yu mel nii bu nu koy def lu mel ni gàmmu ak di taxawal ay jàng lu mel ni ay jàngi reefan ak jàng yu mel noonu bu nu koy def nan la koy defee ba lu ko rax lu ca boole ca bokkut ndax danoo nimmeeku ne daje yu mel nii buy am lu baax la mais da ngay gis ñu koy rax ba daanaka day suppeku sefaan ba kon nan la ñuy xel di def ba bu defat lu mel nii ñu mën koo sellal bo du rax leneen loo xam ne bokk ci kon thème boobu la ñuy waxtaanee nga xam ne bu ñu fi jógee dañuy xam suñuy taxawalati lu mel ni gàmmu wala ay jàng ñu xam ni ñu koy taxawalee boo leneen lu ci bokk du ci dugg kon loolu lu am